mbokki Sénégal mbokki réew mi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 defee dafa ñëw ci wute gu yaatu gi ñaari mbëri yi wute ci wàllum xeex ci technique ci staff ba ci force ci wàllum bagaar di xeex foofee la sunu papa Kady Diop tàmbalee la mu xamle mooy ñaari mbër yépp ay xeexkat lanu tafaatin xeexkat la boo ñaa de la waaye xeexu tafaatin moo gën a jaar yoon moo gën a ordonné loolee nag terewut boo ñaa nekk xeexkat bu mag ci wàllu xeex daal ñaari mbër ko ci nekk am nga ci loo mën a demee marché bu dee ci wàllu technique la mu xamle mooy tafaatin est trop fort ci wàllu technique tafaatin yor na ci lu ub làmb waaye boo ñaa de moom it ci wàllu technique am na ci riñaan bu yéeme riñaan a def nga yegg le staff la mu xam le mooy Tapha Tine est bien encadré Tapha Tine am na encadrement bu baax bu dee Boy moom am na staff bu dëgër ci wàllu force la mu xam le mooy Tapha Tine a une force herculéenne wante Boy Niang 2 force intérieure la amee Tapha Tine boo ko nee jàkk xam ne ponkal la boo ko nee jàkk xam ne ku am force la waaye Boy bu ngeen jàppantee nga xam ne boroom doole la loolee lañu sunu Papa Kati dikkal ci ñaari mbëri diggante Boy ak Tapha Tine mu gën a ko bu dee metre Dame Seck moom la mu xamle mooy rëg-rëg mu ngi génne ay techniques yoo xam ne mën na ko yóbbu fu sori ci làmb rawatina ci MMA bi muy pratiquer rax ca dolli moom maître Dame Seck ne rëg-rëg ki koy entraîner sama élève la Mamadou Diouf a koy entraîner te yokk na lu bari ci moom ci wàllu boxe ci wàllu technique de samba ci wàllu poids bu dee Xaadim Gajaga moom la mu xamle mooy dañoo war a monter ab ligue bu mag dajale suñuy doole fas yéene compétir MMA bu boobaa danañ ci impliqué Bombardier rëg-rëg ba ci Siteu bu boobaa bu metti rax ca doole moom Khadim Gadiaga ne xam naa ay combattant de haut ci wàllu MMA te gëm naa ne buñ taxawalee ligue fii ci Sénégal danañ dem fu sori te nag mbër yi nañu bàyyi xel ne MMA bi ëpp xaalis fuuf làmb ji ba tax na ku ko ci mos dootoo ko bàyyi ka bàyyeegut ca la mu jàpp ba léegi mooy idaali ñi ngi ca tournoi ba mu taxawal di la tournoi des quatre espoirs moom idaali ñi ngi dafa fas yéene délocaliser combat mi yóbbu ko ca Gambie tournoi ni Koña bii dara leeragul autorité yi waxaguñu dara te ñépp a ngi ne patt pataaral du ma fi toog nag di xaar damay jël samay combat yóbbu ko ca Gàmbi ku bëgg seetaan si jéggi frontière boo pare ñibbisiwaat fa nuy jeexale mooy ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun li fi jaaroon bërki démb yóbbu sunu papa Balla Gaye 1 fi jaaraat niki samedi yóbbu sunu papa Boy Bambara moom sunu papa joojee niki ajjuma janvier la dëddu àdduna ba ñu xëyee Parcelles Assainies sunu papa booy bambara wuy ji boroomam li ci des mooy ñaanal ko sunu borom atte ko ci yërmandeem jërë ngeen jëf mbokk li moo nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah